بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي جولي بوكي طالبي نيجي لين دي نيو دي لين سانت تي تيوايو سيرين شيخ مباكي مو سيرين عبد اللطيف اك تي جوري دار ازبو تاريخ سيرين يوسف جوب جوبلو غينا موي نديغال لو خامني شيخ محمود منتخا مباكي جوخي نكو ني وار كو دور اجوما جي ني جيم ان شاء الله ني وار كو ليرال نان لاكو سيرين بي جوبلو ak nan la bëgg ñu taxawé ci ba kenn ku ci ne eh, rawatina ñi nga xam ne ñoo yeewoo ci dëkk bu tedd bi di Touba xam lan moo ci seen taxawaay kon dinañ jox sëriñ Cheikh Mbacke mu Serigne Abdou Latif mu leeral ndigal loolu ni ko sëriñ bi eh, jëmee ci taalibe yi ba kenn ku ci nekk xam ci li nga xam ne moo ci sa taxawaay. auzu billahi mina shaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ñu ngi nuyu bokki taalibe yëpp. ñu jot li yóbbu Cheikh Mamadou Mountakha ñi nga xam ne mooy sunu lépp di sunu doyteef di sunu yaakaar mu ngi mu ne mi ngi nuyu taalibe yëpp di leen sant di leen gërëm naka jekk li ñuy jiital suñuy wax te moo ne koy wax loo maa ngi mi ngi sant taalibe yëpp ci xam ne cofeel gi ko taalibe yëpp amal ak doyloo gi ak yërëm ak yéene ji ak yàgg fi te wér ndax liggéey bi sëriñ bi da soxla waaye moom itam day wax ne cofeel gu tol noonu ak yërmande ji da amal yi cofeel gu am fu mu yem boo xam ne yërmande da ko làmb yërmande ji lépp mi ngi dellu ci bëgg taalibe yi di xam ni ñuy jariñoo ci sëriñ bi waxtu ñu ne wu ne dolli ko ndimbal ci sëriñ bi dolli ko tawfeexi sëriñ bi loolu waxtu ni ñu koy xalaatam yëpp ak bëggam yëpp génn loolu yaari na liggéey sëriñ bi dox na teel bi jëriñ jëriñ sëriñ bi nañu am tawfeexi sëriñ bi loolu mooy ak bëggam mooy yéenam mooy mam lay jàngal ci lay nekk di ko wane kon nag yàlla ci la jeg tawfeexi sëriñ bi nuy tam defe ko nuy sëriñ mën taa bëggee nu liggéeyee sëriñ bi yàlla tafeexal na ban man koo def yéen jim nu yéen ngërëmul sëriñ bi sëñ bi tafeexal na ban dañaa ngi tafeex yëpp ba am ngërëmul sëriñ bi sëñ bi nag ci biir loolu dafa gis jamono yu ak lu sànq jamono yomb mu bëgg waxtu wu nekk ñu gën a dellu ci sëriñ bi moo xam ne daa gis ne am benn jot waruñu tal dara loolu sëriñ bi wax na ay waxam yu bari ba ci ko rek daaw ko bi ñu ko fàttali ko daa waxoon ne suñu yitte yëpp mooy ak nan am sëriñ bi man am sëriñ bi nag li ci gën mooy jublu sunu borom jublu sunu borom wan gannaaw àdduna moo ne nag wan gannaaw àdduna du tax a bàyyi lekk du tax a bàyyi naan du tax a sol mbubb waaye su suñu xol dañuy dégmal sunu borom genn ci lépp àdduna ak li ci biiram ak ak i naxeem ak i rafet rafetam bu ñu jubóo suñu morom nag ci lay mën a am ci lay mën a amee sëriñ bi nga xam ne mi ngi sawat ci bëgg taalibe yi dëgmal sëriñ bi rek bañ a am leneen bañ a taal dara loolu sëriñ bi ci loolu nag moo waxoon ne daa bëggoon fan yii na fas ko yéene dundalaat nan ko daan nan ko daan dundale man fàttali ko daaw ak daa jëkk bu nekk woote na fi bisub xasida bisub xasida yi sax weesu na loolu jiitu na loolu lépp waaye daaw da cee booloon daaw jég da cee booloon bisub zikrullah defoon ko vingt quatre heures daaw moom defoon ko douze heures huit heures ci suba huit heures ci ngoon loolu nag la bëgg ñu dina laat ko ba mu waxee ni ko xalaat ak ko bëggee ba noppi nag ne woon joxoon na ndigal ne mag sëñ Musayn ak sëñ Yuusu na ñaan dem ci saabas ñu wax ko ni ko bëggee buñ jubóo buñ jubóo ci nu ñëw def yëgle bi taalibe yëpp yëg ko jubóo gi moom mën a ndax noonu itam lim la sëriñ bi rek dañ koy mën def amul genn bëggulu sëriñ bi teru dara loolu sëriñ bi mbir mu nekk sëriñ bi la cee so xool nu ko sëriñ bëggee noonu la koy defee noonu itam mbir mu nekk moom lañ ciy xool nu ko bëggee noonu la ñu koy sante nu defee ko na ban waxtaan itam la ma waxoon rek lan bëgg gën a leeral daa waxoon ne dana bëgg ban àggee ci ajuma ji nu jëm nu def ko bis boo xam ne si kar lañ tudd la yàlla lañuy tëdd njëkkee bàyyi fa def ko tàmbale huit heures ci suba ba dix heures ñaari waxtu bi bis bi bañ noppee dañuy def jàng xasiida ak jàng alxuraan jàng ko dix ba une ñu laf waajal julli gi buñ jullee ba noppi ñu dallu xewlu ba ñeenti waxtu mu jàngat ba juróom-benn waxtu ñu yeewee ko bu ñu ko defee boo ju muñu essayé dañ koy defaat mu ne nag kon ni ñuy def mooy waa dëkk bi moom la bëgg ñu waajal ko dundal ko buñ ci àggee waaye man nga def ko ci xewal yi itam nu ca waaye nga defee nga nu ca waaye nga defee na moom dana fàggu ay xewal waaye nit ñi itam luñ man nu may mën rek na ko defee ngir xewal yi doy te xewal yi daa mën a ñàkk mënta ñàkk ci ku ci biir yi ñuy def ndax kuy sàkku xewal da ngay joxe moo tax mu bëgg ñu joxe xewal bu joxe xewal yi itam nee na buñ ciy soobu nañ fas ndax jumaatul tuba wi la ko tuddee ajuma joo xam ne ajumay tuubaa la nan la ko jàppee nan la ko tuddee bu dee itam noonu la ñuy defewaat kon nag nee bu ñuy tàmbali nañ fas dañ daan fase cib nawet bu ñuy jàng cib nawet fas-fas yi ñu daan am waxaat nañu fasaat ko muy nawet bu teel bu tey bu ànd ak yërmande ndox mu barkeel ndox mu jàmm mu doy sëkk ba nawet bi bu am barkeel ñu mën a liggéeyal sëriñ bi fasaat yi te ci magalu Tuuba gi ñëw nu magale ko ci jàmm mu dal mu tey yàlla def ci jàmm te sëñ bi nangul na ko loolu ca def ak yéen jën ca am lépp sëñ bi nangu ko mais loolu bu ñu koy kuy sóobu ci bis ba ku ciy dugg na nga fas fas ñaari fas ko ko bu ñu duggee ci bis bi nag ni mu ñu defee ko jox na sëñ usi mi négal gën ko leeral daara ji dañuy ñëw baas baas fañ na baas buntu kër sëñ Fallou fekk na yónni na ma sëñ am sa dem sëñ am sax bu ñëwee ci baas boobu lay nekk waaye baas ba waa daara ji ñan ñi nekk ci kër sëñ bi jànge fa sa sëñ saalum sëñ bi jàngal nekk fa ñu des ñëw ci baas ba bi baas ba itam sëñ am sax fa lay nekk ak ñi durus ak kuréelam bay yëkkati waaye dana fekk kuréel daara ji ma nga fa bu ñu amee nag yeneen kër yi wër jumaa ji di kër yi sëñ Tuubaa kër ña waru sëñ Tuubaa kër gu waa kër gi luñ man ci dundal ko ci base nit ñàkk fa di tudd yàlla di jàng ñëpp boo ànd dundal bis bi ñu defee noonu Baay Faal itam dañ nekk ca nekk ca penku jullikaay ba foofa la ñuy nekk ak la ko jege lépp ak la ko wër dafa la ñuy sikkaru la buñ nappee fa la ñuy toog buñ napp buñ soxlaa ci ñoom ñoo xam ne dañu génn ci toppatoo nit ñi jàng ci xéwal yi ci joxe ndox joxe kafe joxe añ bu jotee ñu ñu ñu nekk ci loola ñuy jàng ñoom ma ñeetal dara loolu jàng alxuraan yi itam niñ ko daan defee ci yokki yi ci lañuy jàngee alxuraan ndax ba lañ jullee jot ñu defaru julli ñu jullee ba noppi bu ñu fa ne xewal fa la ñuy ko defee waa daal ji itam noonu ma ko waxoon bu ñuy jàng base boobu dañuy jàngee ak ci biir kër ga biir kër kër gu mag gi kër sëñ Tuubaa suñu am sa itam ci base ba lay nekk ak ñoom àndal fa la fa war a ñuy dundale bis bi keneen ku fay fay nekk nag ci kër yi kër yi sëñ Tuubaa yooyu wër jumaa ji boo fee nekkee nan la yaa ngi ci barab bi ci barabu sëñ bi barab bi sëñ bi ñu bëgg a dundal ko kon noonu lañ koy waajale ni ñëpp waaj nag bu ñëwee itam ànd ak yar ànd ak pasteef ànd ak yéene ju sell ak yitte ju mat ni ñu daan waajale mbirum sëñ bi ak ni daan bi noonu la sëñ bëgg ñu defee ko ni sëñ bi itam amul jenn yitte amul jenn xalaat amul benn pasif pour dimbali taalibe yi bañ dem rek bañ jariñu ci rek ñu def bu sañoon taalibe nekk da nga di yëg sax fexe sëriñ bi ci ci gindigu ci sëriñ bi ci bañ a def ci sa xol bañ am gën a bëgg góoru sëriñ bi ndax li ma waxoon léegi bu nekkee la ñuy waajale lu am liggéey booy liggéey wàllu yëngu te di ci ñaan barke bëgg nañ nga am ci barke bëgg nañ nga ko war a delloo waaye sa xol moom la ci bi jiitu rek sëñ bi rek nekk ci ndax waaye ndax li ma waxoon leer na bëgg sëñ bi mooy bëgg bala nga ko mën a def da ngay bëgg yàlla waaye ba ngay mën a am yàlla nag da ngay sëñ bi kon ñooy ñaar dañoo mën tàggoo nañ ko xam te dégg ko te déggee ko noonu te jàppee ko noonu léegi nag nañ waajal bis bi ci wàccaay bi nag kon dinaa jox Serigne Youssou lu nga lu luñ ci wax ci lu ci des lu mu war a mottali mu mottali ko lu ñu war a leeral mu leeral ko bokk ci soobu bokk ko defe ne ko suñu bëggee maa ngi ñaan nu itam noo am tafeex sëñ bi ba man ko defé ni ko sëñ bi bëggé tax sëñ bi noonu la bëggal njariñ rek noonu la bëgg ñu jariñu kon nag nanu sëñ suñu borom dimbalé ci barku sëñ bi ba defee ko ni ko sëñ bëggé kon nak maa ngi maa ngi di bàyyi sëñ Yuusu mu àggale kàddu bu ñu noppee ñu déggee ko no xamni ne ajuma ji ñëw la ñu ñaari koy waajal tax excellent mu noppi te rek la alterné te ak ajuma ñetti fa na fi dox ataar àll ba alxames kon ñëw na fa nopi kon waxtaanam mbir maa ngi noonu waxtaan yooyu noonu yal na jëg tafeex jërëjëf sëñ Lamine defe naa sama kàddu yi li muy jëkke mooy ziar tey sant sëñ Cheikh moom sëñ Abdou Latif di kilifa ci man kon ndigalam moo tax may jottali ay kàddu te kàddu yi cant rek lay doonaat ak yeesalaat ak feddali ndax sëñ bi yàgg nañoo boole liggéey yu mel nii waaye naka jekk mu mët sëkk li mu doon nu itam nu xam ne suñ taxawaay weesuwut taxawaayu murit bu laxasaayu laa yasuna laahu maa amarahum wa yafaluuna maa yumaroon nun bu sëñ bi xasee joxe ndigal rek ci loolu la ñu daal jubali def ci suñ lépp ma bëggee ñu xam ne euh, lii tax a jariñu mooy teewlu gi teewlu gi moo tax waa Touba na nga xam ne képp ku yaakaar sëñ Touba dëgg la waa Touba la waaye Cheikh Mamadou Mountakha dafa am xaas bu mu am mooy lépp lu ngeen gis mu samp ko di ko def rek dafay loo xam ne nañ ko déggee dégginu xamaa aateekum rasulu fa xuzuuhu képp ku ko jàpp foo mën a ne ci kaw suuf njëriñ la dina la fa fekk dëgg la waa Touba ñoo féete war ko dundal muy àjjumay Touba waaye murit fu ñu ne àjjuma jooju mu fekk leen fa nañ ko dundal foofu def ci kem seen kattan ndax loolu du dara lu luy wane ne lii soppi jamono sëñ Tuubaa moo koy def ndax lii boo ko seetloo xam ne am na aw tur woo xam ne sax tur yi ko sëñ bi tuddee woon mooy sawratul bayda di li ñu tuddee révolution maanaam ab soppiku goo xamante ne lépp day yéwén lépp day rafet lépp day day day day leer nañ te deret du tuuru xat du dem loolu nag sëñ Tuubaa rek moo ko moo ko moo ko amal moom moo def liggéeyam bi ba mu sotti mel ni moom moo dem àndut ak kenn liggéey liggéey bi ba mu sotti bàyyee ñu ay ngànnaay yoo xam ne xasida yi rek dong yi ku ci góorgóorlu ci jàng xasida yi xamal ne moo féete kaw dajale armée yi ci monde bi yëpp ñu leen xeexloo ndax sëñ dafa gañe xare bi jox ñu xasida yi ñu takkook moom ci la suñu aaju yëpp di fajoo ci la suñu gàllankoor yëpp di dañee loolu kon di sàkk ay bis yoo xam ne dañ koy baril ndax ku ne xam na ne toll nañ jamono joo xam ne yàqkat bi di noon bi di iblis moom dafa yokk rythme bi mu yàqee kon moom yitteem daf koo yokk ci yàq yi kon sëñ bii moom sëñ Muntaxa bu yokkee yitteem ci defar gi ak di dajale ndongo yi ñuy tudd yàlla di di di di jàng xasida dafa dafa xam ne loolu mooy yoon wi ñuy may nu nu mën a mucc ci yàqu-yàqu jamono kon nan ko fonk rawatina nag nun waa Touba gii nga xamante ne euh, li wër jumaa ji ku nga xam ne ne daayira yi nekk Touba rek bu ñu dikkee ñu ànd du ñu xaj sax ci penc bi day mujj sax am na ay penc ci biir Touba yoo xam ne dañ koy dundalee foofu ndax ajjuma dañ fay julli ajjuma kon war faa xëy jàng fa alquran jàng di fa di fa tudd yàlla mu doon loo xam ne kon sëriñ bi dafa dafa wane yoon wi mu tàmbalee ci jumaa ju mag ji waaye fépp fu ab taaliba ne dana fa àgg danga naan sax fu laafub Seydina Jibril àgg ndigalam lii dina fa àgg loolu yàlla suñu borom defal na ko suñu Muntaxa kon nag ñu ngi tàllalaat loxo ñëpp di déglu it lii sëñ Cheikh wax ne togg xéwal yi moom bu ko kenn jombale sa bopp ndax donte ab super nga mën a togg xool foo xam ne ñu ngi fay tudd yàlla fi la gën a jege nga yóbbul leen ko loolu mooy liggéey bi njabootug sëñ Tuubaa gi it xam nañ ne ñi wër jumaa ji yëpp genn kàddu lañ am mooy kàddu sëñ Muntaxa mooy seen kàddu te gis nañ ne saa bu ñu santaane bisub xasida nun yaatu gi ñu gis ñu amal nu ko ñu may nu ko ak lañ ñu fay faggul ak lañ ñu fay defal loolu moom ku ne xam na ne kon ñoom itam kenn ku ci ne dongo ya fa nekk ak waa kër gi ak daayira ya ñooñu buñ ca jàppee foofu rek képp dina dundal kër gi loolu suñ ko defee dina mujj penc mi na mu war a riiree ak na mu war a feesee dell dinañ ko def te dina ànd ak dal dal gi daal mooy li ci am solo loolu kon mooy kàddu yi xam ne moom lay dolli seen cheikh di soññaan nag moom waa Hizbut Tarqiyyah nu xam ne nooy soldaaru bis bi soldaar yi moom suñ buñ tal dara fii ak al ajjuma nu fexe ba dara bañ a sooxe ci sunu wàll ci bâche yi ñu war a def ci sonorisation bi ñu war a def di woo tamit ñi nga xam ne naka jekk noog ñoom du ñu ñaar benn lañu dañu ci daan jàppale mooy ñi nga xam ne dañu daan indi seen i bâche ñi nga xam ne dañ daan indi tamit seen sono ak ñi nga xam ne dañu daan jàppale loolu ñu ngi leen di tàllaat loxo ndax bis la boo xam ne bu fees dell ak njëriñ la boo xam ne njëriñu rek mooy li ci sëriñ bi jublu yal na yàlla suñu borom kattanal ba nu am melo wu tax nu mën a jëriñu ci bis bi ci barkeb Cheikh Mamadou Mountakha te lim ci fas lépp moom mu ji ak yàggam fi jiitu ci euh, ci dara ji Cheikhuna Ahmadul Xaddim barke borom jërëjëf. jërëjëf euh, sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou Latif ci kaddu yi leeral yu am solo yooyu jërëjëf itam. sëriñ Youssou Diop jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah ci fàttali ndigal lu Cheikh Mouhamadou Mountakha di fàttali ne ndigal li ajjuma ji ñu jëm lay doon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai ak ajjuma ji ci toppaat di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai kon muy ñaari ajjuma yi nga xam ne ñoo sësaloo muy bii ñu jëm ak bi ci topp ñu fas ko yéene nag defee ni ko sëriñ bi diglee am ci yitte ak pas-pas fas yéene defe ko kem ni ma ko santaane di ñaan suñu borom ci barkeb Serigne Touba mu dajal ñu ci ak tawféexu Serigne Touba liñ ci def lépp itam mu nangul ñu ko te yàggal fi Cheikh Maodo mun taxaate mu ànd ak wér wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.